dañuy pousser vers une transition comme un ça, pays qui sort de guerre non, on n'est pas en guerre l'État est debout le pays fonctionne l'administration travaille les Sénégalais kañ laa doon am problème su fekkee li ma la fi indil comme fait yëpp jusqu'à présent je dans les faits am na benn boo ci wetti li ma fi waxagum ci fee yëpp amul benn buñ ci mun a wetti léegi nag wax naa la fay report bi ce ni contre ni pour qui que ce soit report bi ce n'est pas pour prolonger un mandat de qui que ce soit c'est le statut du report qui fixera les rôles des uns et des autres loolu waxaguñ ci. transition démocratique. dégg nga fi nekk appelez ça appelez ça comme vous voulez. troisièmement le report la c'est un report consensuel souvent ñu bare. le mot consensus comme neexul prononcé xam nga en français on parle on dit pas consensus on dit consensus ñu bare dañuy sauter consensus bi eh Boubacar Camara nee na ñu reporter élection yi ñu répété ko en boucle. consensus moo fi mënul am. waa ah ça c'est un pronostic comme man xam naa ne léegi yow pronostic nga ay noonu nga fi pronostiqué fit pronostiqué waat nga nga ne consensus mënul am. da ngeen dul am consensus. léegi dama ne man léegi nag on en vient on en vient au consensus pour man bu usman Sonko ak Macky Sall d'accord report consensuel. mun nañ ko mais mais mais Boubacar respecte les autres yow. bu ñu ko da non attends. Ousmane Sonko ak Macky Sall ñu réew mi. waaw saaga leen waxal lu leen neex. man dama ne c'est les deux Ousmane ak Macky Sall. ils ne vont pas déterminer le cours du jeu électoral. ils déterminent. il y a d'autres Sénégalais qui comptent oh, et qui ont les deux là les deux forces politiques du pouvoir et de Ousmane Sonko ñoom ñaar bu ñu d'accordé report consensuel. mën nañu mettre un schéma qui permet de le faire. ñaar ñooñu sax mënuñoo d' accord. waaw ah, yow da ngay pronostiquer. ma ne bu ñu d' accord. <laughs> déjà déglu rek bu ñu d' accord nañu suul affaire u report bi que du mun a am.